à l'intérieur moom soxla ma fi sécurité bu ko defee fii lépp danañ bëggoon day am kenn dafa ñu xam li seen liggéey amin suba pale bi dafa war a set wicc parce que moom waa député ñëpp noo ko waaw suba dafa war a set wicc moom secondaire lañ. la bëri. su borom am ci àjjan. ñii secondaire lañ moom.